gan gi biram Khoudia Lo secrétaire général adjoint bu PASTEF ñu ngi lay nuyu am mbégte dalal la ci sunu matinal bi maa ngi leen di fay am mbégte également pour euh, éveiller les consciences par rapport au problème que vous me posez. Mhm. jërëjëf sëñ Bilo euh, ñu tàmbaleek euh, dogal bi DGE jël taxaw ci itam ne du jox daal mandataire Ousmane Sonko ay fiche de parrainage donte yoon dogal na ni delloo nañu ko ci liste électorale yi kon war naa mën jot fiche de parrainage am loola noo ko gisee ak lu ciy saxalaat. waaw DGE ci boppam moom amul dogal bu muy jël DGE dafa war a soumettre. ci li nga xam ni moom la yoon dogal muy justice DGE bi mu jëkkee ni du joxe fiche de parrainage bi tegu ko woon ci yoon asumaak bi ñu ñëwee ni ah véritablement am na juge bu décidé ni euh, nañu jox usmaan Sonko parrainage am ndax delloo nañ ko ci liste électorale yi kon DGE warul woon refuser loolu c'est arbitraire mooy teguñu ko dëgg teguñu ko ci yoon benn ñaareel ba Euh, nit bu ñëwee ci administration man def naa fanweeri at ci administration nit bu ñëwee danga koy bàyyi mu dugg nga dalal ko laaj ka luy sa soxlo waaye ñoom ayib dafe dafa ñëw ñu ni ko doo dugg ba pare euh, teg fa dispositif ba pare nag ayib dafe du n'importe kii député du peuple la mooy koo xam ni am na ñu ko jox seen ay voix ba fal ko ci assemblée nationale kooku kilifa la ci réew mi bu ñëwee da nga ko war a jox gëddaam bàyyi ko mu dugg nga dalal ko tatagal ko laaj ka li mu soxla da nga koy nangul wala nga bañal ka waaye ni ka doo dugg loolu beneen problème la. Hmm. donc déjà li mu def man rafetlu wu wuma ko tey yaakaar naa ni am na ñu bare ñu nga xam ni war nañ ko ñaawlu lu mel ne avocat muy avocat yëpp à l'unanimité muy euh, union des magistrats UMS muy société civile muy képp kuy yëngu si ak ak yelleefu doomu aadama rafetlu woo li DG def. Hmm. est-ce que yaakaar nga ni ñaawlu yooyu dana faj mbir mi. waaw ñaawlu mbir dina faj mbir ndax nit kat dina def dara lu nga xam ni dafa yaakaar ni dana passer inaperçu waaye bu ko ñëpp yooxoon ñu ko wooy sàcceey bu ko defee kooku dafay taxaw. wala muy jéem a daw bu ko defee ñu jàpp ko donc foofu la ñu toll fi mu ne ñi dénoncé dafa bare loolu war na tax DGE euh, bu fekkoon président jotu ci mu jot ci président de la république nga xam ni moo kilifa ñëpp moo ñu njaboote bu mbir mu mel ni amee war na addu kàddoom jóg mu jëmale ko ci ñi nga xam ni kat ñu ngi salfaaña àq ak yelleefu doom aadama bu ko defee mbir ma dellu si si yoon fi mu ne loolu la ñuy xaar ndax DGE kat mi ngi dépassé prérogative am parce que ñu bare dañ ni moom kat dafa di administration mi ngi mel na tey ma war a récupérer ay demande demande yu nga xam ni dafa jëm ci ku war def examen waaye man li ma war mooy récupérer demande yi jébbal ko ki nga xam ni kat mooy seet ñan ñoo war a def examen ak ñan ñoo warul def examen mhm. loolu la moom dafa war a jël dossier yi joxe ko mais bu fekkee daf ko téye loolu dama yaakaar ni du prérogative am te ñu bare wax nañ ko. Hmm. yaakaar nga ne kon yuuxaloo yeeg yooyu dana tax ñu dellu ginnaaw bu ñu la déggee kon ba tey yaa ngi am euh, yaakaar ne Ousmane Sonko dana jot ay fiche de parrainage am ba ba ba mën a bokk ci élection yi moo ne euh, sëñ bi loo jëloon nañ fi dogalub tëj ko ci këram te teguwul ci yoon ñu bari itam ñaawlu woon ko ba ci sax seen ay farandoo ñoom waa nguur gi mais loolu taxul woon état dellu ginnaaw su dul bés ba mu ko neexee ndax Ousmane Sonko tënk nañ ko këram juróom fukki euh, fan ak juróom xoolee waru leen am sikki sàkk ci ne danañ ko xëy na moo sa jox ay fiche amuñu sikki sàkk si ni DGE dina ko jox ay fiche benn amuñu sikki sàkk ni bu fekkee ni jox nañ ko ay fiche dina am lu mat quatre millions de parrainage amuñu sikki sàkk tamit ni bu demee conseil constitutionnel bi àtte dëgg dina jox dëgg Ousmane Sonko mooy dina ko jàllale parrainage waaye amuñu sikki sàkk si ni deux mille vingt quatre incha allah Ousmane Sonko dina jël réew mi ndax tendance boobu la ñu nekk actuellement. Hmm. waaye yéex loolu amuñ ci ci benn sikki sàkka. waaw buñ ko ko joxee dana yéex gars yi danañ ko rawee lu bari ndax ñoom tàmbali nañu ba léegi am na ay fan est-ce que yéex googa du doon itam gàllankoor ci seen candidat. yéex googu mënut a doon gàllankoor euh, donte salfaañe nañu ay akam ak yelleefam. Hmm. ndax bu fekkee dañuy départ jëm ndar. oto yëpp départ dem ba cees ñu soog a lay jox sa départ ah foog nga gaaw lool mm-hmm. waaye nag wóolu nañu ki ñu teg gaaw na gaaw goo xam ne bu déparé même un mois après ñoom dama ni ci deux semaines wala trois semaines dina leen raw mm-hmm. lool parce que ñu bare dañu xaar euh, otoom ni oto boobu de la ñuy dugg waaw kon sénégalais ñu ngi nekk dans l'attente te li ma waxul woon léegi mooy dañ ko tëjoon barricade ko pendant cinquante cinq jours xam nga kooku ak ak yelleefu euh, Ousmane Sonko lañu lañu la ñu salfaañe dara xewul woon waaye dafa am leneen hmm. fii moom dañu salfaañe ak ak yelleefu lu mat euh, un million wala deux millions de sénégalais yi war a voteel Sonko ndax ñooñu dañu taxaw temm ngir Ousmane Sonko mii kat euh, jot ay àqam ak yelleefam ndax dañu teg si loolu yaakaar maanaam bu yéegee ñoom ca la ñu teg seen koom ndax gis nañ ni kii kat moo jub jub bi nga xam ni bés bu yéegee ñoom dinañu am espoir boo gisee xale yi di génn di jël gaar yi sax tey na espoir boobu la ñu bëgg ñàkk waaye ñu leen di wax ni leen dellu si leen ngeen taxaw hmm. xam leen di espoir boobu bu leen ko ñàkk nañu taxaw tem ngir ñu jox ko ay fiche de parrainage. kon da nga yaakaar ne sénégalais yooyu dinañ wàcc ci mbedd mi fexe ñu delloo Ousmane Sonko ay àqam. xam nga wàcc ci mi benn aspect wu combat fexe ba euh, droit international ak ñëpp ñi nga xam ni euh, wax dëgg yàlla dañ ci war a àddu àddu ci fexe ba convention yi ñu signé woon droit de l'homme ñu respecté que fexe ba constitutionnaliste yëpp ak ñëpp taxaw temm ni nañ ko delloo àqam loolu yëpp forme de combat la mais combat yooyu yëpp dañ koy teg mais askan wi kat euh, euh, askan wi kat sëñ bi amul beneen euh, moyen xeex bu dul wàcc ci mbedd mi wane dooleem xëy na état deltu ginnaaw wala bu ñu yeggee ci élection ñu tànn ka leen neex te bu Ousmane Sonko bokkul lool du sotti ndax bala nga ne naam ne fa. balaa nga naan naam nefa nefa bi mooy dama la wax combat multiforme et multidimensionnel. Hmm. xam nga ñu bare dañ yaakaar ni wàcc ci mbedd mi rek mooy mooy mooy il waaye di def foo fu nit jaar di campagne ñu ni ko sonko sonko nam nañ la xam nga loolu par formu forme de la am na yeneen forme de combat yu nga xam ni mën nañ ko adopté mais formu de combat boobu nga wax kenn exclure ko parce que sénégalais yi ñooy jël seen euh, seen seen illa def ko ci forme de combat bu nga xam ni buñ ko defee kenn du ko ji mën a dara parce que du Pastef du kenn peuple sénégalais ñoo buggul injustice te kat ñu ngi teg Ousmane Sonko injustice. président Macky Sall aussi mën na intervenir ne lii jaaduwul nañ ko teggi. bu ko defee mu dellu si à l'orthodoxie parce que moom dafa war a am sortie honorable loolu yëpp ay possibilité la yu nga xam ni xaw ma ban lañ ciy jaar waaye li wér te wóor mooy 2024 moom Ousmane Sonko dina jël réew man li ma bëgg xam xam ñàkkul itam ñu bari ñu ñuy déglu bëgg nañ ko xam mooy foo teg sa yaakaar gi ndax Ousmane Sonko tënk nañ ko fi këram ni ma ko waxee sànq dara xewul donte ñaawlu nañu fu ne euh, loola ñu dogaloon te teguwul ci yoon Ousmane Sonko jàpp nañ ko dugal ci kaso bi dara xewul Ousmane Sonko grève de la faim fi bañ naan mi ngi ci diggante dund ak dara xewul lu tax nga yaakaar tey biñ ko xañee ay fiches de parrainage am dara dina xew bañ delloo ko àqam ak yelleefam foo teg boobu yaakaar man laa bëgg a xam. dara dina xew parce que loolu yëpp c'est une série d'injustices. lu ëpp tuuru. teg nga nit ki nangam dara xewul. nga teg nit ki nangam dara xewul waaye dara xew na dara xew na mooy nit ña ñu ngi koy naqarlu naqar gaa ngay gën a yokku bu demee ba ëpp nag tuuru. Mm. ndax objectif bi mooy lan mooy Ousmane Sonko nekk président de la République loolu la nit ñi bëgg barricade que terewul mu nekk président de la République extirper que terewul mu nekk président de la République fexe ba tëj ka kaso terewul mu nekk président de la République waaye bés boo ko bëggee xañ fiche de parrainage nag loolu mooy véritablement yaa ngi koy tere nag mu nekk président de la République foofu yaa ngi salfaañe àq ak yelleef Ousmane Sonko waaye àq ak yelleef ñëpp ñi nga xam ni dañuy taxaw pour voter que te ñooñu fi ëpp. Mm, bu weesoo askan wi ban tax ngeen nar a am nu ngeen nar a xeexee waxu yoon bi euh, au plan juridique xam nañ ne awakaam dinañ ko def mais yéen ñi nekk ay farandoom ci wàllu politique lan moo nar a doon seen taxawaay ci mbir mi. wax jii may wax. forme xeex la mooy bataille commission communicationnelle hmm. ay marche euh, dañ koy envisager ndax yoon may nañu ko ay manifestation dañ koy envisager mais yoon may nañu ko euh, stratégie tamit euh, dox ci xelu nit ki c'est-à-dire fexe ba am ay stratégie yoo teg bataille psychologique ak yëpp ñu dañ koy mëne ñu nit ñu koy mëne hmm. nañu xool kan mooy gagné yooyu yëpp c'est des formes de bataille nga xam ni si la ñu nar a sukkandiku ba ñii nga xam ni ñu ngi taxaw ceelu dul yoon nekk ci kaw ñu fexe ba wàcc leen ci suuf ñun ñu yéeg ca kaw doxal yoon. waaye est-ce que Pastef est am na lu ci des lu mën lool parce que seen parti bi tas nañ ko ñii daw nañ ñii ñu ngi ci kaso bi. la ilaha illallah parti bu def trois millions de personnes nga naan ay mil ak deux mille. Ah, loolu mooy problème bi ñu bare dañuy nax seen bopp dégguñu ñee exilé nañ ñu bari ña ngi ca kaso ba fu ngeen ne. mais ñu ngi ñu dégg ñuy coow guddeeg bëccëg suba ngoon xanaa gisoo grève de la faim bi am nga xam ni au niveau national et international ñëpp a ngi koy wax. Mm. mooy ba xew fële ca Liberté 6. Mm. xanaa gisoo yeneen forme de combat yi fi am nga xam ni nit ñi guddeeg bëccëg ñu ngi ciy wax xam nga sénégalais yi fi mu nekk dañu tàyyi ci. mbirum dem le dem leeg dellu si dañu xam ni li xew jeex na ba pare trois mois wa ci des looloo tax forme de combat bi mooy téye sa carte xaar ba pare fexe ba ki nga bëgg mu bokk bokk léegi nag loolu bu ko bëgg salfaañi jalgati ka ah sénégalais yi ñooy jël seen responsabilité ñun waa Pastef la ñu war a def ñu ngi koy def fa ñu war a taxaw ñu ngi koy taxaw fa ñu war a dem ñu ngi fay dem manifestation yi am à l'extérieur yooyu gis nga ko peuple bi ni muy réagir gis nga ko mais. kenn du jiiku paaka si mbaram te paaka boobu mooy peuple bi. d' accord waaye dafa mel ni du Ousmane Sonko rek ndax euh, am na gaa yu bëri mbokk bokk ci opposition bi ñu ngi leen di kar ak seen i caravane noo gisee loola. man ci sama bopp lii man may wax man la engagé ndax ñu bare du ñu bëgg ndax dañ naan unité de l'opposition nangam nangam. Hmm. ma ne naxa sax dang la du dara. Hmm? caaxaan la ku amul mille personnes di dox naan dañ ko arrêté loolu dañu bëgg wane ni waaw du Ousmane Sonko kese la ñuy topp kat ñu ngay arrêté ñeneen ñi nangam nangam. ñan ñoo bëgg a wane ñi karam ña leen di kar. bien que c'est injuste et arbitraire parce que ñu ngi kar tey. ay nit yuy dem waaye euh, Amadou Ba mi ngi naan damay def tournée économique daa di ndar nee na waaw ndar nee na waaw politique la waaye économie la xam nga yooyu yëpp ay contradiction la yu nga xam ne dafay gën a merloo peuple bi dafay gën a merloo peuple bi actuellement li la wax moo ci nekk. bu ñu karee kenn ku nga xam ne amul deux cent personnes ci ginnaaw ay waay kar boobu du dara nañu ca dëgg kañu daan kar dëgg kay mooy koo xam ne bu génnee kolobaan kolobaan fees dell ba kenn du fa mën a jàll bu demee ndar ndar fees dell ba ñuy du mën a egg euh, ca digg ndar kooku moom la ñu bëgg kar léegi nag di def ay actes yu nga xam ne ñooñu xaw ma sax euh, euh, loolu yëngaluñu ñu da nga yaakaar ne dañoo complot état ñu leen di kar wala da nga ne état moo bëgg a nit ñi. duma dem ba ni dañu complot état ndax loolu leeruma waaye lu ñuul boo ko gisee lobin rey sa maam ah am na lu fi jotoon xew kon ñun war nañu def attention. prudence de toute façon li ah li fi jotoon xew mooy euh, ànd ak ñii tey ëllëg nga dem ànd ak état bien que da nga yaakaar ni ñi lay topp ay mouton de Panurge la ñu déedéet ñooñu dañuy réfléchir boo dee wax lii tey ëllëg nga wax lee dañu lay bàyyi topp ka doon wax la mu doon wax démb ak tey ah, ba ëllëg kooku la ñuy topp waaye kenn du la topp loolu yëpp c'est extrêmement important bu kenn nax kenn. li wérte wóor mooy man du ma wax ni gouvernement dañu ànd ak gouvernement waaye niiru na ni daal ah lañu waroon def muy rôlu tout opposant mooy fexe ba àq ak yelleef Ousmane Sonko ñu préserver que am na ñu nga xam ne ñu ngi dénoncé naam baax na waaye nag ñu ngi wuti seen parrainage xëy na yaakaar nañ ne bu kii bokkul kat ma bëgg a jàll ma mën a jàll loolu nag du fi amee tey du fi amee ëllëg parce que peuple sénégalais moo bëggul loolu. alors mhm. c'est la voix du peuple c'est la ñu jeexal ak euh, ndonol président Senghor ba ñuy bëgg a jaay ca bitim réew ay décoration wak yeneen daal ci ay alalam yu mu fi bàyyi am ñu jàpp ne loola euh, ndonol Sénégal la état di ci jéem nag euh, ay pexe ngir xëy na loola bañ koo rëcc mbir mi noo ko jàngatee ci boppam en tant qu'intellectuel loolu ñu ngi ci gërëm état bi war a taxaw nga xam ni dafa war a taxaw taxawaayu fexe ba lépp lu nga xam ni propriété intellectuelle la wala lépp lu nga xam ni dafa jëm ci sargal Léopold Sédar Senghor ndax moom kat monument la. Mm. bu ñu fàtte ni dafa taxaw euh, jiite Sénégal waaye teg ay actes nga xam ni sur le plan mondial. Mm. am na sax lu mu def si francophonie ak lu ne kon tey ñun war nañu préserver patrimoine boobu xam ni ñoo ko moomal suñu bopp lépp lu koy. Euh, bëgg indil lu nga xam ni dafay xaw a lëndëm ñu dindi ko teg fee teg lu leer xam ni kii kat sénégalais la nañ ko protéger ba abadan. Hmm. parce que loolu nag mooy suñu rôle. mooy rôle gouvernement. jërëjëf Birame Khoudia Lo secrétaire général adjoint bu PASTEF ñu ngi lay gërëm amoon nañu mbégte lool dalal la ci sunu matinal bi ñu yendoo jàmm. Euh, jërëjëf merci beaucoup